mbokk yi kon ñu jéem a baral ndax xam naa ne donte ay tomb lañ jëloon ci dénkaane boobu itam waxtu wi dana ko xate kon mu wax ne ñetteelu tomb bi ci ragal yàlla nag walla ñetteelu degré bi mooy bi tax ba sa xol ak sa xel lépp dara luy dox sa digganteeg xalaat suñu borom walla nekk ci mbiram du ci tàbbi te nee na boobu nag mooy dëggi-dëggi ragal yàlla boobu mooy tollook yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaati mooy yéen gaa yi gëm ragal leen yàlla dëggi-dëggi ragal yàlla ragal yàlla nag ak tedd nga moom ñu bari bëgg nañu ko seen yitte ju bari daañ ko ci def waaye ci sunu borom moom ak tedd nga am mënta am ci lu dul ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ki leen gën a tedd daal moom ci sunu borom xëy na ci feneen waaye ci yàlla moom mooy ki ki leen gën a ragal yàlla moo tax muy wax feneen ne laa tatlubu alkarama bi geyri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa bu leen sàkk mukk ak tedd nga ci lu dul ragal yàlla ndax dëgg-dëgg tedd nga mooy ragal yàlla kon mu teg ca wax ne nag waaw ginnaaw wax na la ne yiw yëpp mi ngi nekk ci ragal yàlla ragal yàlla boobu mooy lan mooy jëfee ndigalam bàyyi tereem ragal yàlla googu nag léegi ci lan nga ko mën a amee mu ne boo laajee loolu kat naka lañuy ñuy ragalee yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla mu ne na nga xam ne ragal yàlla mënta nekk ci lu dul jaam bi jéem a xam jéem a xam ginnaaw ragal yàlla mooy jëfe ndigalam bàyyi wattandiku ay cereem mënta am lu dul jaam bi jéem a xam li yàlla digle mu di ko jëf jéem a xam li yàlla tere mu di ko wattandiku te nee na nag xam googu mënta am xaaliban ci li ëpp xam moom mënta am ci lu dul jàng xëy na xam te jàngoo exception lay doon te ñi ko mën a am bariwut waaye kon foofu leneen day taxawaat mooy ne nécessité la lu mënta ñàkk la ci jullit bi mu jàng xam sunu borom xam nu mu koy jaamoo xam nu muy wattandikoo ay tereem moo tax mu ne xam ak jëfe solo sépp fa la ne rotal na ci ci loo xam ne al imam Ghazali da ko da koo bind da ko wax wax ne daal xam ak jëfe ko yiw yëpp ci la ne mbir yépp ci la ne imaam Ghazali dafa wax ne lépp loo gis walla nga di ko dégg walla boroom xam-xam yiy farlu di bind di taalif di waare wala sax ba ci yàlla téere yi mu wàccee yonent yi mu yónni bind asamaan géeg suuf lépp loolu moo tax loolu moo ko waral kon day loolu lu rëy rëy la moom la sëriñ bi di waxaat fenaan al ilmu wal amalu jawharaani li xayrayi daareeni yajlubaani boo bëggee daal njëriñu ñaa àddina ak àllaaxira na nga xam ne ci xam-xam ak jëfee ko nga ko mën a amee mënoo ko amee ci ña ngay askanoo kese bu fekkee ne la war ci xam-xam ak jëfee defoo ko nee na ñaar yooyu xam-xam ak ak jëfee ko maanaam xam-xam boo jaamoo yàlla ak jëmmi jaamu gi loolu yëpp yi ñu lim yépp looloo ko waral day ni ci sëkk misaal fi yàlla waxee ne allahu alladi xalaqa sab'a samawaatin wa min ard ardi misluhun yàlla mu bind juróom-ñaari asamaan bind juróom-ñaari suuf loolu de lu rëy la lan moo tax li taalamu ngeen xam comme xam gi mënta ñàkk anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay'in ilma leeral yooyu mu ne aaya boobu la bi ci topp nga xam ne aye boobu dafay leeral ne xam mënta ñàkk beneen aaya bi bii leeral ne jëf jaamu yàlla mënta ñàkk mooy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni kon ñaari aaya yooyu dafay tënk loolu mu indi fa leeral yu bari ci diggante ñaar yooyu nag xam ak jëfe ko loo xam ne tënk bi mooy mu misaal la ko ne xam-xam da koy jàppee garab garab gi ngay sonn baykat yi li tax ñuy bay di ci sonn fuy fruitier ak yeneen garab gi ngay jëmbat walla ngay ji di di arrosé di defi lépp nga nga mën a am fruit ba moo tax meññent ba kon nee na jëfe gi nag mooy taxaw taxawaayu meññent ba kon boo amul garab doo am meññent waaye boo amee garab itam te amoo meññent dafa mel ne am nga moyen mbaaye amoo objectif mu ne kon na nga xam ne ci tënk rek ndax waxtu wi xam-xam yi nga xam ne nag farata la sàkku ko farati la ci jullit bi mënta ñàkk ñetti xeeti xam-xam yii la te ñetti xaaj yooyu mooy diine boo waxee diine muy benn ñetti xaaj yooyu la yooyu mooy xam-xamu tawxiid mooy bii tax nga xam ni nga war a jaamoo yàlla yàlla ni nga koy wéetalee yonent yi malaayika yi téere yi bi ci topp mooy xam-xamu sharia bi lay won lislaam ak i ponkam séere yi tax julli woor azaka ni ñu koy defee aj makka bi ci topp ñetteel bi mooy xam-xamu tasawuf mooy bii tax nga rafetal lépp li ngay def mooy bii tax nga jaamu yàlla mel ne yaa ngi jàkkaarloog moom ngir wóor gim la wóor ne boo gisul yàlla it yàlla mi ngi jàkkaarloog yow ni ko xadiisu Seydina Omar bi nettalee bi Jibril alayhi salaam ñëwee di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu yu mayee wul yaatal ko mu teg ci nag ne ci dénkaane yi nga xam ne mu ngi jëwoon ci jëmm jooju waaye bu dee bëgg nañu yiw def ñu ciy tàbbal ne ko nag na nga na nga sàmmoonte wala na nga sàmm sa juróom-ñaari cër juróom-ñaari cër yooyu mooy làmmiñ biir awra nit ki walla pëyam ñi ko xamul mooy sa sexe ak itam say ñaari loxo say ñaari tànk say bët say say nopp nee na làmmiñ làmmiñ day lu doy waar lu mat a sàmm la xadis yu bari leeral na leeral na ni ñu war a bàyyee xel làmmiñ kon làmmiñ lu mat a bàyyi xel la am na xadis bi wax ne ku noppi dana mucc ku noppi rek dana mucc mën naa mucc beneen bi wax ne ñi gëna metti mbugal day ëllëg yowmal qiyaam ñett lañ mooy boroom xam-xam bi jëriñuwul ci xam-xamam mooy ni mu ko doon leerale ñaareel bi mooy ku bari lu muy wax neen lu dul dëgg walla lu baaxut ñetteel bi mooy kii ki wormaalul ay way juram kon ginnaaw bokk na ci lii taxam taral mbugal lu mat a bàyyi xel la kon làmmiñ dañ koo war a sàmm bokk na ci dimbale nag nit mu sàmm làmmiñam nee na <coughs> bari looy tudd yàlla di wéet itam léeg-léeg teqalikook nit ñi waaye booy def fu daje xumboo yaa xumbee yaa nga fa mën na laa jafe ak néewal looy jëfandiku bi ñu des mooy biir ngir ñu tënk kon nee na danga war a sàmm sa biir ba doo ci dugal lu xaraam doo ci dugal lu lënt doo lekk lu dul lu dagan lu dagan loolu nag moo xam xam nga fi mu jóge wala xamoo ko ci misaal boo toogoon ñu indil la aw ñam tey doo lijjanti ndax dagan na wala fu mu jógee ndax walla yu mel noonu moom mu teg ci nag wax moom sëriñ bi ne ñetti ñii day suñ yàlla suñ borom du nangu seen ñaan ku bari lu muy jëw ci làmmiñ la aju niki noonu kuy lekk xaraam lu xaraam niki noonu ku ëmbal julli yi ak kiñaan ak mu mu ñëw ci sa ñaari loxo nee na ni nga koy sàmmee bu ci laal loo warta laal bu ci laal jigéen ju la daganul moom lay wax ak ñoo banaliser nuyoo <coughs> te muy lu ñu war a wattandi ko nuyoo diggante góor ak jigéen yu araamantewul kon yooyu ci liñ war a wattandiku ci loxo la bokk bokk na ci nee na bind sa loxo loo xam ne wax ko baaxut araam na kon nañu xam ne li ma ko waxee wan buñ contextualiser sa téléphone sa smartphone wala yow mi journaliste di bind bind loo xam ne baaxut suñ borom dana la ko laaj wala bind loo xam ne tey boo taxawoon ci nit ñi sañoo koo wax na nga xam ne loolu jaaduwut bi ci des say ñaari bët nee na kon na nga ko gëmm ci lépp lu daganul <coughs> mu teg ci wax ne nag lu daganul lu bari la lu baree bari la mu indiwaat xool jigéen ju la daganul di ci xoolu bànneexu donte ku ndaw la sax xool bindum nit moo xam ab téereem wala lum bind te jubluwul nga xool ko buñ contextualiser li may wax léeg-léeg nga jël moo xam lu la nit envoyé la nga fuité ko génnee ko loo xam ne yow sax waroo ko xool nga tasaare ko yaatal ko kon nee na yooyu yëpp ci la bokk wala sax dugg ci néeg donte am nga permission dugg ci waaye lu ne nga jéem koo xool nag luñ làq lu ne fu ne nga dawal fa sa bët lu mat a wattandiku la <coughs> nee na bokk na ci li ñu warta xool yooyu yëpp lépp loo xam ne rek làq nañ la ko lépp loo xam ne ka koy def wala ka ko moom jubluwul nga gis ko kon ni ma wax bari na lu ci dugg bu dee ay tànk dox jëm ci lépp loo xam ne lu yàlla gërëmul ci la bokk yaatal na ci nag ci boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy dem ci bunti buur ci lu dul nécessité lu dul lu mënta ñàkk kon ay tànkit dañ koy sàmm ci dem foo warta dem mu bokk ci loolu ba tey cër yi sa awra ñuy wax sa sexe wala ñu bari noonu lañ ko mën a xamee buñ demee jamono nag ba foo tourné ñu ne la vidéo sex tape nangam foo tourné ñu wax la awra yi nangam li am solo ci wax ji fii mooy ba ci yow mi nga xam ne sax jógewul ci yow bul am yitte ci gis ko ndax loolu bokk na ci liñ lay tere mu ne yow nag sa jëmm sa awra na ko sàmm ci njaaloo sàmm ko ci li demee noonu comme yi ñuy wax borom ñaari tur yi ak yu mel noonu na nga ko wormaal ci bàyyi ma yi ak yeneen nga xam ne lii boo koy jàng di gone yu bari doo ko xam waaye boo demee ba xam ne jamono toll na foo xam ne am na ñuy sëy sax ak i animal nga xam ne lu doy doy waar la te lu mat a bàyyi xel la kon bokk na nag mbiru mbiru mbiru boobu ñuy wax ak ni mu banaale itam ci niñ ko banaliser ci jamono xëy na leeral ko du fi xaj waaye bari na yu ñuy coow di ko wax boo mayee ñu ne mineur nga maye te centre yi ñuy tuddee centre socio-éducatif xale bu ci am fukki at ak ñett wala ñeent jëm kaw ku ca dem ñu may lay pilule wala ñu may lay préservatif wax la na koy jëfandikoo loolu am la kon nañu ko bàyyi xel mu wax ne nag bari na luy dimbale nit ki bokk na ci luy dimbale nit ki mu sàmm boppam ci njaaloo mooy bari looy jàng suratul falaq qul a'udhu wax subhaanal malikil ku ci bëgg a mucc bari jàng suratu wasamaa'i dana ci dimbale nit ki kon ni ngay sàmmee tamit sa bopp ci wàllu awray nit mooy bañ a xool awra kum mën a doon moom laay wax moo xam vidéo la smartphone télé bul xool awra kenn am na sax ñu ko daganal ci diggante ñaari way dencante yi te gënut ndax nee nañ xool gi mën na am yu mu indi nee na yam yam mën a indi bokk na ci mën nga caa gis loo sib mu jur mbañeel mën naa indi lor itam mën naa indi bët yu muuru ak yeneen yoo xam ne du gën te dina dindi kersa nga xam ne nit ki sax awray boppam sax ci lu dul darura nécessité waru koo xool waxuma laa di ko fooyee wala yeneen kon mbokk yi ginnaaw waxtu wi mayewu ko kon yooyu yenn la ci dénkaane yi nga xam ne mu ngi rot ci fatxul naan fii jawaabi abdirahman te jamono ji laaj ko lool ku ne war koo bàyyi xel nee na nag yooyu yëpp xëy na euh, euh, nopp yeeg yooyu yëpp waroon nañ cee ñëw waaye waxtu wi mayewu ko ñu tëjee ci li mu wax ci xol ndax xam ngeen ne xolu nit ki bu yéwénee léppam yéwén ku sa xol baax sa lépp baax bu baaxut sa dara mënta baax ni ko xadis bi waxee nee na xol lii tax mu baax mu wér mooy baril looy jàng alquran tey settantal mooy bari li looy wéet baril looy wéet baril looy jóg guddi di jaamu yàlla taxawal guddi lu am daraja la ci suñu boroom di julli bu nit ñi di nelaw ak it di toroxlu nee na ci waxtu fajar di ñaan suñu boroom di toroxlu jëm ci moom kon yooyu yenn la ci yi nga xam ne jaam bu ko te di ko bàyyi xel suñu boroom dana la defal subhanahu wa taala sa xol wér te xol yonent saa sallam moo waxoon ne lumb la boo xam ne bu baaxee jaram bi yëpp baax bu baaxul dara mënta baax mbokk yi bokk na li li gënoon a tax ci ñuy waxtaane téere bi mooy innal musibata isa amat hënat ni mu ko waxee mooy lakinil musiba isa amat hënat mooy lu ñaaw musiba lu baaxut bu yaatoo dafay mujj doye di tey jigéen joo fi ne sol nangam baaxul mu mën la wax waajuram bu koy sol wala wala moroomu waajuram jigéen joo fi ne def nangam baaxut mu ne la soxna diw da koy def te li ciy solo si koo fi ne wax nangam baaxut mu ne la kilifa yi nangam dañ koy def mu ne nag yow miy wax loolu ñey def loolu bu leen suñ borom fangoon jëmale leen safara doo bëgg mu ko ànd ak ñoom kon lu mu bari bari wattandiku ko bi ci des mooy loolu na mu xaraamee woon ci jamonoy nit ñu baax ñi na mu rëyee woon donte ñi koy def bari na banaliser nañ ko tamit noonu la xaraamee ba tey kon yàlla nañu yàlla dimbale ci boole ñu ci jaamam yi nga xam ne daañu dégg solos dénkaane yi te jëfee ko yàlla musal ñu dimbale ñu ci sàmm suñuy cër wéral ñuy xol wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam